mbokki internet yi seetaan NGTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné lañ sunu seen ndax dafa jotee ay xibaar ak ay jàngat yu wér te wóor xibaar li ci gën a fës tey dañ koy doore ak mbirum maître El Hadji Diouf moom avocat bi ñu gën koo ràññee ci mbirum Ousmane Sonko ak saar moom nag euh, ginnaaw bi nga xamante ni amoon na ay jafe-jafe ak ak euh, kuréel gii di les ordres des avocats ñoom nag ñoom ñoo tegoon ay daan kii di maître El buñ ko suspendre depuis le 7 février ndiki démb nag doon nañ ko àttee la set bi ñu weesu lañ ko suspendron waaye démb lañ amal àtteem fële ca tribunal bu Ndakaar moom nag daal dinay bénéficier li nga xamante ni daal mooy euh, huit mois avec sursis maanaam euh, juróom benn juróom-ñetti weer yoo xam ni daal daan nañ ko ko waaye euh, dama am dañ koy surveiller di xool ba xam yii ñu ko tere dina ci wéy di àddu wala déet moom maître El Hadji Diouf sukkandikoo ci source a nag audition bi diire woon na lu toll ci dix heures ba dix ba dix neuf heures Euh, diire na ko maanaam déglu gi euh, délibéré délibéré bi tamit euh, jël na lu toll ci ñaari waxtu bu ñu sukkandikoo ci surge a ba léegi bëri na nag ay avocat yoo xamante ni ñi ngi ko doon layol moom mii di maître El Hadj ñu gën ñu gën cee ràññee maître Seydou Diagne Abou Diali ak maître Michel Bass ak maître Aboubacry Baro ak ki nga xamante ni moo di Moustapha Dieng ak maître Ciré Clédor Ly moom mii bokk ci avocat yi Ousmane di défendre ki nga xamante ni moo di maître El Hadj moom mii nag euh, moom mooy avocat bu Ousmane Sonko waaye tamit doon défendre El Hadj ñu ki démb bu sukkandikoo ci Source A mi joxe xibaar bi xam leen daal ñoom ñaar ñi ay xarit lan bi nga xamante ni doomu maître El Hadj bu jigéen doon sa yi daf koo bàyyale xaritam bii di maître Ciré Clédor li waaye ñoom avocat yooyu ñoom ñoo mujjoon gagné li nga xamante ni moo di euh, procès boobu nga xam ni seen client lan ci doon euh, layal muy maître El Hadj Diouf. leneen lu soxal maître El Hadj Diouf ba léegi muy àtteb Sitor Ndour moom mi nekkoon fi directeur kudd waaye tamit euh, nekkoon ci APR nekk responsable APR moom daal li nga xamante ni maître El Hadj xamle na ko mooy euh, lii ñu def nii yëpp complot kese la lii moom responsable la ñu koy jiiñ euh, viol bi nga xamante ni moom taqewu ci laalewu ci ca viol boo xamante ni amul certificat médical amul dara loolu ay tappale kese la waaye nag bëri na ñu koy commentaire moom maître El Hadji ci waxam ji naan ko xanaa euh, certificat médical ma mi ngi door a am njariñ ndax fii leen ko génnee ci mbirum Ousmane Sonko aji Adji Sarr nga ni euh, certificat médical bi ay tappale la tey nga ñëwaat fii naan euh, viole bi amul certificat médical. kii di Baye Mbaye MC Niass moom it daal di nay def benn live bu yaatoo yaatu di ca xamle lii ko waral mu génn Sénégal ba nekk foofu ca Amérique États-Unis moom daal xam le ne daal fii dañ ko fee xatal bu baax a baax a baax ca ñim ci jàmm baaraama tuuma mooy Macky Sall ak ñi mu àndal xam le ne daal Macky Sall mësul bëgg baay ñas yi muy def nii yëpp euh, euh, bañ gum bañ rek euh, ñi nga xamante ni ñooy waa famille baay Niass loolu rek moo waral lii waaye lii incha allah dina jeex 2024 Ousmane Sonko dina nekk président de la République ca moom du bokk ci élection yi nga xam ne moo nar am fii Sénégal 2024 muy révélation yu yaatoo yaatu yoo xamante ni kii di Baye Mbaye MC nekk doom ci Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass daal koy def euh, moom daal bàyyilul dara ki nga xamante ni moo di président de la république. keneen ku def ay révélation ca def ko ci réseaux sociaux yi lu ci mel ni Twitter Facebook Instagram moo di euh, Pape Alé Niang moom journaliste bi njiital Dakar Matin. moom nag euh, ginnaaw bi nga xamante ni am lente na fi woon ak yoon mu soxal mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr mais révélation yoo xamante nii defoon na ko ca ba loolu waraloon sax ñu jàppoon ko ci kaso bi ginnaaw bi mu génnee ñu jàppaatoon ko ndax révélation yoo xam ne defoon na ko ci dossier bi moom Pape Alé Niang nag daal di nay déposé li nga xamante ni moo di passeport am ngir ñu euh, tamponel ko ko mu dem ca bitim réew Amérique faju ji waaye loolee dañ ko ko lànkal ba tax na moom Pape Alé Niang mi ngi koy euh, naqarlu bu baax a baax a baax ca ni lii daal du dëgg du yoon moom dañ dafa am lante ak yoon rek ban teg ko ay daan bu soxlaa boppam ngir dem ca bitim réew faji ji dañ koo ko war a nangul waaye moom Pape Alé Niang daal mi ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax li mooy defi doon ci ay xibaar ñu doon ñu doon leen ko jottali fii ci NGTV wéy leen di abonné fii ndax dafa jotee ay xibaar ak ay jàngati wér te wóor jëf